www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk ci gën a fës dellu rek àddu ci procès bu Khalifa Sall euh, ci jamono ji may wax ak yéen nag procès bi jàpp leen ni kon euh, dox na Khalifa Sall nag fi mu nii laaj ak tontu mi ngi dox ci diggam ak ki nga xamante ne rek moom mooy attekat bi lu ko jiitu nag kii di mbay Touré di comptable bi moom mooy ki nga xamante ne nag kon moo jonoo woon ak attekat bi dina ci jokkoo ak Cheikh Tidiane Dione ma beneen procès waroon am tey jile euh, ci tribunal correctionnel bu euh, Diourbel mu sol mu ñeel nag euh, Baye Modou faal ñu gën ko xam ci Boy Djiné procès boobee mujj nañu ko dàq ba juróom-benn fan ci weeru mars li ko waral nag moom moomee di Boy Djiné teewul ci tribunal ba lii nag ab daanaka njombe la muy nag koo xamante ne da doon wax ni moom gendarme la sol tenu nag bu jaar yoon doon régler circulation ba fële ca Mbour waaye mujj nañu koo teg loxo ndax jegewul benn yoon gendarme moom ak juróom-benn yoo xamante ni nag receleur lañu euh, nekk ñoo xamante ne doon doon jënd kon loo xamante ne jàpp nañ ne kon alal ju euh, lewut la adjudant major Medoune Ñing euh, dana ci dikk ak ñun gannaaw ba nga xamante ne nag dañoo def rek kon patrouille ba mujj teg loxo nag waajoojee niñ ko waxee mu doon régler circulation ba nee na ca Mbuur bis bu ñu jagleel xeex nag xarfal jigéen ñi tey jii lañu ko màggal juróom-benn fan ci weeru février fii ci Sénégal nag xew-xew bi ay acteurs yu bari nag teewee ko ngir nag ni ñuy loo xamante ne aada la ju fi euh, yàgg waaye jàpp nañ ni tamit faaw rek ñu daat ci taxaw bu baax a baax ci wàllu politique jël ci dogal ndax loolu képp mooy mën a tax kon aada jooje daal di fi jóge mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxee loo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak euh, procès bu xalifa Sall jamono ji may wax ak yéen nag xalifa Sall ci jëmmi boppam euh, kon laaj ak tontu mu ngi dox ci digganteem ak àttekat bi tribunal la ñuy dem rek fekk ji fa euh, Cheikh Tidiane Dione Cheikh Tidiane nuyu naa la. maa ngi lay ma ko waxee rek jamono ji may wax ak yow kii di xalifa Sall maire bu Ndakaaru kon ma nga ca kanamu baax ba lan nga ñu mën a tënkal kon ci boobee procès. alors li ci mën a njëkk a jàpp moom mooy tuuma yi ñu teg ci euh, noddam maanaam euh, moom dafa lëkkaloog ay nit yu association def ay réunion pour mën a def ay mbagul yi euh, loolu daal lañu ko toppee te xaalis bi ci xayma ñu ngi ko jàpp benn milliard ak huit cent ak trente millions ci suñu koppar provisoirement loolu la ñu waxoon ci prévention bi waaye nag am na benn bâtonnier bu jóge kanam nee na provisoirement leerul nañu wax mbir mu féeti ci la ci la président tribunal bi daal di dellu si waat ne ah, kon euh, somme bi ñu ko jàpp ci benn milliard ak huit cent euh, trente millions ci suñu koppar lool looy somme bi nga xam moom la ñuy toppee ci Khalifa Ababacar Sall ak ñu mu àndal bokk na ci nag euh, Mbaye Touré ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom ñëpp dañuy toppee tuuma yooyu waaye fat ci ne liñ ci mën a jàpp mooy Khalifa Ababacar Sall moom ci jamono ji maanaam li ñuy wax genèse maire bi maire bi moom moo mairie bi ndax buñ fàttali ville héritage colonial la boo xamante ne Dakar moom moo nekkoon capitalu am mag la am mu ne nag moom ci atum euh, euh, Cheikh Tidiane ma ngoog euh, Cheikh Tidiane Dione xëy na du ñàkk ñu am la ci suñeen jotaay xibaar am na rek tuuti jafe-jafe euh, ci euh, buumu jokko bi nga doon àddu foofee ci tribunal ak procès bu Khalifa Sall wax nañ ko sànq Khalifa Sall nag fi ne nii jano ak attekat bi laa ak tontu kon dox ci diggam ak moom ñu seeti beneen procès bu ñu waroon amal tey jile ci tribunal correctionnel bu Diourbel waaye mujj nañu ko dàq nag ba juróom benn fan ci weeru mars muy procès bu Baye Modou Fall ñu gën ko xam euh, ci euh, booy jinne Babacar Diouf la ñuy fekk ji euh, foofe Babacar Diouf nuyu naa la. di la fay. boobu mu mel ni dàq nañu ko ni mu ko waxee noonu ndax ki nga xamante ni moom mooy booy jinne ñu di Modou Fall mujj la teew. waaw booy jinne mu di Modou Fall mujj la teew fi nga xamante ni moo di tribunal de grande instance bu Ndiarème fi nga xam ne dañ ko waroon àtte tey ci wàllu correctionnel maanaam euh, ay affaires yoo xam ne ni mu ngi ko doon amal ci ay ay restaurant ay càq-càq noonu tey lañ ko waroon euh, dalal fi nga xamante ni moo di tribunal bi wante ñaam ñëwul ñu ko atte loolu la ñuy jàpp ci li nga xamante ni moo di procès bi wante Baye Modou Fall nag du yàgg dara parce que altine bii di ñëw le 12 mars dina le 12 février dina ànd ak li nga xamante ni moom moo di tribunal bi ci beneen mbir moo xam ne ni wàllu crime lay doon moom euh, war nañ ko cee àtte ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu criminel chambre criminelle bu Diourbel li nga xamante ni fii ci tribunal de grande instance bu Ndiarème xam naa dinañ ci gën a dekk euh, dikkaat ak avocat bi nga xamante ni moo di maître Babou moom moo nga xam ne moom moo koy layal fi nga xamante ni moo di tribunal de grande instance bu Diourbel ñu koy jaajëfal bu baax Babacar Diouf ca doon ah, jokkook ñun ah, ca Diourbel waxoon nañu ko ci ah, ponk yi muy nag koo xamante ni da wax ni moom gendarme la te laale ca dara doon sol nag tenue bu jaar yoon ñu ne déetawaay mu ne nag ma ngay régler circulation ba ca Mbour mujj nañu ko teg loxo moom waajoojee ak juróom-benni resleur adjudant major Medoune Ñing moom nag moo daal di rek kon jiite woon li nga xamante ni kon moom mooy opération boobee moom nga xam moom yi nga xamante ni moom mooy commandant bu brigade mixte bu jam euh, ñaajo euh, ca la nag daal di yabal rek ab patrouille moom waajoo ji nag ba ñu ko fekkee nee na ma ngay doon régler euh, circulation ba waaye dafa séen rek oto gendarmerie daan na nag paymat daw waaye dana koo topp ba mujj koo teg loxo ba ñu demee nag fa nga xamante ne fa la nekkoon doon def ay njombeem fekk nañ ca moom nag daanaka ay jumtukaay yu am solo yoo xamante ne nii gis nañu ko ca barab yu nekkoon mu nekkoon ay jumtukaay ci wàllu militaire naka noonu fekk nañu ci moom ay ordinateur portable ay téléviseur ay groupe électrogène ay batterie automobile ak euh, daal ay jumtukaay yoo xamante ne daal euh, kenn mënu ko xayma waajooje euh, soloon tenue bu jaar yoon ñu ne woon nag tenue yooyu sax njort nañu ne ma ngi ko jëlee ndax da doon wutali ay cantonnement militaire daanaka cantonnement yooyu la doon fabu di wutali ngir mën a am ay jumtukaay dinañ ci dellusiwaat ci suñu jotaayu xibaar ñu wax nag ci xeetu ñaawteef fi nga xamante ne léeg-léeg nag dañu koy faral di nemmeeku ci biir commissariat yi moo xam xoxatal léeg-léeg nag ñu jàpp nit ki bun xataal ko ñu ne nag loolee la ñu bëgg rek mu dakk ci biir commissariat yi ndax bari na lu ñu koy euh, ñaxtu loole tax na nag ba observatoire bi nga xamante ni euh, moom mooy xeex lu ni mel euh, ci kaso yi daal di rek amal ab tàggat jagle tàggatu jagleel ko nag ñi nga xamante ne nii ay takk der lañu rawatina ak 44 école police nationale ñoom nag la ñu tàggat ci wàllu woowee diiru juróomi fan ngir nag ñoom it ci seen wàllu bopp ñu tàggat ñi nga xamante ne nii ay élèves policier la ñu ngir nag ñu mën a xeex xeetu torture yooyu Pape Fara ñi ngi lañ ci àndal. ab module bu ñu teg nag ngir jàngal ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw police yi bañ ñuy toroxal nit ñi ci commissariat bi li ñu bëgg daal moo nekk ñeent fukk ak ñeenteelu promotion bu police bi yenn jëfi ñaaw ñaawteef yi ñu leen di tuumaal ñu bañati koo gis. liggéeyu policier maanaam liggéeyu sax bépp euh, force de défense sécurité euh, mu ngi sukkandiku si euh, wàcco ak yelleef ak àq doomu yi loolu mooy li nga xam ne mooy mooy si li nga xam ne suñu sukkandiku suñu liggéey sukkandiku donc euh, ñun nag si suñu formation tàggat bi ñu tàggat xale yi fii si loolu ñu bokk na si seen programme ñu ngi leen ko defal. Sénégal aussi fi mu toll ci niveau démocratie ak état de droit que aussi image bu ñu joxee mu nekk image boo xam ne nii euh, sur le plan international ñëpp xam ne que Sénégal dafay respecter les droits humains euh, euh la dernière chose aussi moo nekk ne enquêtes yi aussi pour que enquêtes yi bu ñu demee au niveau du tribunal ñu mun ko jox euh, valeur bi ci war il est normal que il est important que au niveau de la police liggéey bi ñu ci def que bu ñu demee au niveau du doon gaañ parce que dañ ma doon dóor. loi bi bees bi ñu jël ne avocat bi dafa war a teew ci heure yu njëkk bu ñu la jàppee li nu mel mën naa indi saafara ci ñaaw ñaawteef yooyu nga xam ne yoon Dakar daan. Euh, respect boobu dafa am importance pour ci ñoom d' abord parce que il faut que ñu faire leen comprendre que bu fekkee ne ñoom dañu euh, traité nit ku nuñ ko war traité ñoom ci seen bopp yoon bi daf leen di topp mun nañ leen poursuivre devant la chambre d' parce que dañu def lu ñu war a def dañu violenté nit ki wala dañ ko dóor jaru ko ci def enquête avocat dafa war a taxaw euh, bu fekkee ni nit ki dañ koy interroger bien que taxaw bi nag taxaw bu présence passive la. partenaires yi bëgg sukkandiku ci sensibilisation ngir faj li nu mel. xooxatal ak toroxal nit léegi waratul am loolu dañ koy dañ koy dañ koy tere euh, nit nit boo gis doomu aadama boo gis dafa am euh, ay droit ñu war a respecté seen dañu war a respecté seen ak ak seen yelleef. gannaaw dakaar Thiès la ñu jëm nag daat leen tàggat lépp ngir fexe xar xanam bi nga xam ne moom la ñu jox waa polis mu dëñ ci kanamu askan wi. jaajëfal ko bu baax Pape Fara Gning njiitu réew mi Macky Sall dana dem ba Nouakchott loole nag ci alxemes ji lay doon euh, ca yi ngir nag euh, seq waxtaan ak ki nga xamante ne rek moom mooy njiital njiitu réew ma di Abdel Aziz la ñuy waxtaanee nag bokk na euh, ci wàllug napp gi fële ca ndax moom ñu bari nag ca mool ya ña ngi koy rafetlu bu baax a baax tey sàkku nag ci njiitu réew mi bu mu bàyyi nag bépp benn xeetu napp nañu waxtaanee lépp ndax bari na li ñuy nemmeeku ay jafe Mauritanie bi nga xamante ne rek kon nappkat yi dañ fay faral di dem ak liñ fay gis tamit ñu leen di faral di faat saa su ne euh, ñu teewlu Ousmane Dieng moom moo wax ci turu nappkat yooyu ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. accordeel nu licence boo xamante ne que bépp gaal goo xamante ne yaa ngi nekk si ndar maanaam di nga si mën a gis sa bopp maanaam mu bañ a mel comme nii nga xamante ne noonu la licence bi doon tëddee at yi soo gisee problème bi de bare si ndar mooy majorité bi ñoo gisul seen bopp si licence bi mais minorité bi ñoo gis seen bopp si licence bi. mu négocier que comme ni ko président de la république euh, monsieur Abdou Diouf ni nga xamante ne accord yi mu amoon ak naar bi moom mu fexe ba am accord yooyu ndax ku nekk amoon nga accès si licence bi. jënd ak dem nappi si façon nappin bi nga bëgg bi si gannaaw loolu xëy na si la contrainte bi am bay moo waral jur moo jur problème yii fi am yëpp mooy ñenn ñi gis nañ si seen bopp mais ñi si des ñëpp gisuñu seen bopp kon majorité bi gisuñu si woon seen bopp moo waral jàpp bi bare jàpp bi bare conséquences yi bare parce que ñun mool la ñu xam te si géej la ñoo dund su fekkee dañu amul jën fii yàlla def suñu naatoo euh, suñu mbokk yi suñu wet xëy na jën am na fa situation yi changé na mais yàlla na yàlla dimbali ba nga xamante ne lii moo wuti daal maanaam dana yomb si ñun ñun ñu am si amee matale bay nga xam ne ku nekk daal si gis sa bopp. regroupement taxi daw ci ndakaaru démb nag yëglu nañu amal nañu rek doxub ñaxtu ngir nag wax seenub naqar bokk na nag ci ñàkk fu ñuy gaare seen taxi léeg-léeg ay barab yu bari euh, ci ndakaaru ñu leen di tere euh, ñoom ñu yegg ca barab yooyee rawatina nag ay jumtukaay yu mucc ayib ba ci sax anam yi nga xamante ne nii euh, kon noonee la ñu war a liggéey ñoom taximaan yi di ko naqarlu seen doxub ñaxtu démb bi nag bokk na ci seen ñaareelu plan d'action Ibrahima Kane ci ron point bu RTS ay taxi ñu takk si ay morso yu xonq ca place de l'obélisque la ñu jógee nag dox ba fii dawalkatu taxi yi di wane seen naqar li ñuy sàkku mooy ñu wutal leen ay bërëb yoo xamante ne dinañ ci gaare ci dakaar yëpp rawatina xoolaat bu baax a baax anam yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee. xam ne aéroport dañu yaakaar ne profil lay nekk si ñun mais dafa ñëw nekk beneen inconvénient ci ñun parce que dañ fay beddi chauffeur transport yi parce que boo demee aéroport chauffeur transport yi fan leen yóbbu taxi fan leen yóbbu mérité boo ñëwee ca bunt ba ña ngi fay fekk ay location de voiture lañ moom lañ tuddee seen bopp mais bu client yi génn dañ naan la ñu ay taxi la assurance bi nga xam ne nii dañ ci boolewut chauffeur si ñu bëgg ñu boole ci chauffeur si nga xam ne assurance day jël en charge chauffeur beneen bi ci des mooy ñu bëgg ay aires de stationnement dans toutes les communes euh, de la région de Dakar. ab diir a ngi nii nag kuréel bi ëmb taximaan yi di ñaaw lu ba léegi seen i nekkin ci loolu nag ñuy sàkku njiitu réew mi indi saafara ci seen i jafe-jafe laataan nag ñuy xool ñetteeli plan d'action bi ñu namm a déroulé. bi mooy suñu deuxième plan d'action troisième plan d'action bi lu yàggul dara dinañ ko fësal bu digloo bu fekkee ne amul benn réaction taxaw ci benn troisième plan. syndicat yi nag ne ñu ngi am yaakaar ne seen i jafe-jafe dinañ ko saafara wante nag dàquñ benn yoon ne dinañ yëng-yëngal bu fekkee ne kenn mayut leen nopp Ibrahima Kane lii tey jafe-jafe la muy nag wàllu garab ci district sanitaire yi fii ci euh, Sénégal ñu ne nag bari na lu ñuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu woowee ba tax na nag ki nga xamante ni euh, moom moo jiite pharmacie nationale d'approvisionnement di sàkku rek ci mbooleem district yi ñu joxante loxo su ko defee nag mën a xeex kon ñàkkum garab yooyee kàddu yooyu nag ma ngi ko yëkkatee euh, ca diwaanu Kaolack muy anet sekk Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. man tax na ba nga xam ne am naa yaakaar ne bu ñu delloo ku ci nekk ci sa gox loo doon def benn di ko yokk ndax fexe ba askan bii nga xam ne ñun rekk lañu yaakaar daañu jot ci seen ay garab ci yegg si naa ci jege si naa yëpp sottiwul nag benn fan loo gis mu rafet dañ ko rafetal kon boog man sama warigar mooy woo acteurs yi fexe ba nga xam ne ñu xam seen bopp xam seen liggéey xam seen toogaay ñu ànd lëkkaloo liggéeyal réew mi li ñu tax a jóg daañu ko liggéey ba mu mat sëkk ci waxtaan nag xuloowuñu xeexuñu dañuy waxtaan lëkkaloo ànd réfléchir te acteurs yi nga xam ne ñoo ma wër am nañ ci rôle bu am importance te yaakaar naa ne daañu ko liggéey ñoom lenn daal wër na mooy lépp loo xam ne euh, askan baa ngi koy mbébét di ko xaar ci ñun di ko xaar ci ministère de la santé di ko xaar ci état sénégalais tax ñu ko doxal soobee suñu borom. li ñu koy xoon ci ponk yi muy bis bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel euh, xeet euh, xeex yenn aaday lu ci mel ni nag xarfal jigéen ñi euh, tey jii lañu ko màggal fii ci Sénégal nag ñu ne ne lu ni mel war nañ ko gën a mën a xeex ndax jàpp nañ ni sax ci wàllu politique tamit war nañ ci jël ay dogal yu ñoŋ su ko defee nag ñu daal di koy xeex bu baax a baax jamono ji may wax ak yéen nag am na ay yoo xamante ne nii ña nga dajoo rek di weccoo xalaat ci wàllu woowee dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen tukkib nemmeeku bi nga xamante ni bu France di Emmanuel Macron amal na ko fii ci euh, Sénégal gannaaw nag bu ma demee fële ci CEM euh, bu Hann euh, la ñu fa nemmeeku nag mooy classe bu ne ca bés boobee nag ñaar fukki ndong ak juróom-ñett ñoo ca nekkoon waaye nag boo ko xoolee dëgg sax du loolu ndax nee nañ classe yi juróom-benn fukki ci ay ndongo ñoo fa nekk keroog nag dañu ko tëralee woon noonu rek ngir ci wàllu kaaraange professeur de mathématique bi di Abdoulaye Faye moom nag moo réew yi di ñëw ku ci ne nag nag am nga loo def maanaam liggéey bu am solo daal def nañu ko ngir nag lépp yemb ca bis boobee Aminata Mariso Pape Sangone Mbaye Sem Hann Bel-Air mu ci siiw ginnaaw bi fi njiitu réew bu France ak njiitu réew bu Sénégal amale woon foofu visite ci ginnaaw ba ñu publier ab vidéo. réalité bi xam lan la ñun dañ wax ne les deux chefs d'État danañu dugg ci ñaari salle de classe pour cet effet nag mënu leen jël élèves yëpp yi doon def cours ci classe boobu dugal ko ci classe bi kon dafay fees parce que war nañu am ay journalistes yu mot ay quinze wala vingt ci biir salle bi chaque protocole bu état bu nekk dafa war a indiwaat ay délégation donc mënuñu pour des raisons de sécurité conserver le même effectif et ils nous ont de réduire conservatif ils nous ont avancé des chiffres raisonnables. ci vidéo bi ñuy gis ne ñàkk déggoo dafa xaw a am diggante élève bi ak ki koy jàngal ndaxte xale bi nee na ñaar fukk ak juróom-ñett la ñuy faral di nekk ci classe bi waaye loolu ñetti fan rek la. 28 lañu pour des raisons de sécurité pour pouvoir vous accueillir et que la salle ko def mi ngi ci vidéo bi mais gars yi dañ ko dagg ce n'est pas seulement à Hann mais c'est dans tous dans presque banlieue Dakar yëpp classes yi dañoo prétérique mais c'était pour des raisons de sécurité qu'on a retenu 28 élèves pour vous recevoir ci communiqué inspecteur de l'éducation et de la formation bu Grand car xam ne na lu xew ak lu waral ñu soppi salle de classe bi daal di fay dugal ñaar fukk ak juróomi ñetti élèves dong élèves yu bëri loolu yuy weesu cinquante ci biir classe bëri na luñ koy gis ci école publique yu Sénégal loole di lu am way du tee yenn élèves yi daañu jàng ci anam yooyu réussir si tamit seen vie scolaire. li nga am nañu yéene liggéey mhm. nañ bàyyi mbojo mbojo nag mu wax. Aminata Mbaré Sow ñëwub Emmanuel Macron ci euh, Sénégal loole nag dafay firndeel rek euh, lëkkaloo gi dox ci diggante France ak euh, Sénégal lëkkaloo boobu nag ñu ne sax gën nañu ko yaatal ci wàllug sax solaire maanaam courant bi courant boo xamante ne nag ci jant bi nag kon lay sokkeekoo mu am ab park solaire boo xamante ne nii ña nga koy tabax ca dëkk ba ñu naan Baaxale Ndiaye nekk ca département bu Louga central boobe nag nee nañ bis bu sottee lu toll ci ñaari téeméeri junni jotee kon ca courant secretaire d'État bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew euh, ca France ba mu àndeek ak Emmanuel Macron fii demoon na nag nemmeeku ji euh, site boobee ngir nag xool tolluwaayu liggéey ba ñu ne sax dana jeex laata njeexitalu weeru mai bi na Thierno Fall. tool bi yaatu lool toll ci ñeent fukki hectare ñu fi taxawal tey ab centrale solaire photovoltaïque muy projet bu am solo bu nga xamee ni rek ñu ngi koy amal ci wàllum énergie renouvelable ca nguurug Sénégal seq kook réewum France. Euh, projet euh, pour euh, réparer la. lii ab projet bu am solo la jëm ci wàllu xeex li yàq jaww ji lépp aju ci wàllu énergie renouvelable muy centrale bu nga xamee ni rek lu toll ci deux cent mille foyers dina leen mën jox jox courant ginnaaw ba ñu ko jokkaleeg bu barale bi. des énergies renouvelables c'est un très beau projet. kii di secrétaire d'État des affaires étrangères bu république française moom di dinay profito ci teewaayam fii ci Sénégal ngir nemmeeku si liggéey bi. Euh, il m'a semblé man ma teew fii tey ngir seet si liggéey bi waaye itam dëggal discours bi nga xamee ne rek moo jëm ci projet One Planet Summit bi nga xamee ne rek nguurug Sénégal ak France ñu ngi ci yëngatu bu baax a baax kon mangook muy ab expérience bu am solo nga xamee ne rek Sénégal tàmbali nañ ko donc euh, ma gën lawal ba mu yegg ci yeneen gox yi. se déploie en d'autres points du Sénégal. centrale solaire bi nag benn laagun ci Sénégal bu ñu tabax ak lu ñuy wax système tracker. Euh, mooy première centrale solaire. Euh, à traqueur mooy bii topp naaj parce que yeneen centrale yi fi nekk yëpp ci Sénégal ay ay ay ay panneau la mais panneau yi ngeen gis ni ay panneau yoo xam ne dafa am ay moteur yoo xam ne su jant bi fu mu dem mu topp ko day tax rendement bi mu gën a élevé. liggéey bi nag Climat Afrique moom moo ko yore lu ëpp téeméeri ndaw fekk baax ci gox bi di ci liggéey suba ak ngoon moom nag ñi ngi ko door ci janvier 2017 war a nag jébbale caabi yi ci mois de mais bi ñu dëgmal. ñu yegg ba France ak soxna yi fare ca APR mu mel ni nag kon biccoog mbaalo ga ma ngay wéy ci seen biir bi yoon nag jege ñaaley euh, présidente bi di Awa Diop euh, Mbacke mi nga xamante ni moom moo jiitee kon euh, femme APR ya foofe mooy nag ñoom seen jëmmi bopp ñoo daal di rek kon singali ak tontu ki nga xamante ni moom la ñuy woowee foofee député de la diaspora ci seen gis-gis nag moom député de la diaspora boobee la mu war a def kay moom mooy kon yeggee sénégal nekk ca bitim lépp loo ñu koy jëlee tey euh, ci pencum ndawi réew mi Ibrahima Camara. jigéenu APR yu ànd ak madame Aw Diop Mbacke fii si Paris andi ñoomit ay leeral si ngañ yi seen njiit di dégg jamono ji kon bu ñu nee Aw Diop liggéeyul je pense que c'est de la méchanceté puusal ma toog rek moo fi nekk. ça veut dire que na fi aw Diop Mbacke jóge ñoom ñu ñëw toog jël palaasam déedéet ki yore matt mi xam nañ ko. ki yore gaz bi yoo xam nañ ko te ki yore almet bi xam nañ ko te ñoo teg lépp ci suuf te xam ne position baa ngi xaar bëgg ñoo ree nañ leen ànd ak monsieur le président de la république parce que li mu xam mooy liggéey man naa ngi door a jógee Sénégal le décembre laa jóge Sénégal bi ma jógee dakaar di dem ca aéroport ba. damaa bëgg man Astou Fall ndax dafa mel ne maa ngi mel ni ku jóge Elbeuf di jaar yoon du Mantes-la di war a dem Orly ba ma dem Charles de Gaulle. xam nga nit tamit nit la rek. ay jullit lañu. même bu fekkee nit def na la dara lu mu méttee métti ñëw na baal leen ma baal naa leen. na ah. nañu ñëw àdduna du dara dafa jeex. dañoo xam ne ñu ngi fii tey waaye suba xamuñu fu ñuy dem. si waxtaan wi ñu àddu itam si taxawaayu député de la diaspora yi. sama député bi ñu élire ay réun du réunir nit ñi pour wax leen qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale on l'a jamais vu moi je regarde la télé je vois des gens dormir à l'Assemblée nationale du Sénégal sa xaalisu Sénégal jëluñu ko pour jox ko pour sol ay mbubb yu rafet. xaajaloo jigéenu alliance pour la république yi fii si Paris di gën di ba kenn xamagul ana fu wànnent di mujjee ki gëtëm. gannaaw politique bi ñu wax nag euh, ci euh, xar mi fële nag euh, ca Kolda ñu gis ni ay jafe-jafe la li nga xamante ni moom moo di gàtt ndax saa su tabaski amee kon ñu bari ci askan wax du mën a jote ci xar nag moom la soxna yi bëgg xeex tey mànkoo nañu nag defub di ay soxna yoo xamante ni ñu ngi yëngu kon ci wàllu càmm gi foofee nekk ca Fulaadu ñoom nag la ñu bëgg daal mooy soxna su ne kon am ab gàtt naka noonu it bëgg nañu xar yi nga xamante ne nii dañu koy jéggaani ci yeneen réew yi daal di jeex fii ci Sénégal Abdoulaye Diallo. yu Fuladu ñoo taxawal ab kuréel bi ñu duppee le des femmes éleveurs de Kolda dañoo fas yéene xeex jéggaane gi suñu réew di jéggaane ay xar rawatina xaru tabaski. ñu former jigéen yi encadrer leen financer leen ñu yar xar am autosuffisance de mouton Sénégal tabaski bu jotee fii ba juróomi at ci gannaaw. dañuy bugg a kenn fekke du génni sa raison ngay dem di jëndi xar. am nañu yaakaar ci ni euh, meew mi dina xam niñ koy liggéeyee am nañu yaakaar ci euh, euh, ci liggéey tamit li nga xamante ne lii mooy xar yeeg béy yi ak yooyu ndax gis nañ ko li président national bi wax na ko léegi ñun fii fi mu nekk nii bu tabaski jotee dañuy jéegaane ay ay ay ay ay ay xar ak ay béy lu nekk jëlee ko Mali jëlee ko Mauritanie waaye bu fekkente ne tey am nañ kuréel bi nga xamante ne bii mi ngi xeex bopp fekk duñ ko wuti fenn. bi le projet mooy méngoog bëgg-bëgg jigéenu Fuladu donc tey bu fekkee ne ñun ñu ngi mën a am suñuy xar fii euh, di ci mën a dundal suñu njaboot di ci mën a régler suñuy soxla daf ñuy gën a jàppale suñu économie ndax laata ngay dem jëndi feneen yow boo ko munee produiral sa bopp defaral sa bopp jëndal ko si sa gox da lay gën a développé waxuñu bu ñu jëndee feneen mais ñun tamit nañu dugg ci système bi mun a euh, multiplier lu ñuy def valoriser ko jox ko doole jox ko gëddam. suqali wàllu yarum ginaar mbéyum fourrage ak transformation meew ci biir bi les réseaux ñu wax nag ci tàggat yaram ak US Ouakam mi nga xamante ne fi ne nii nag ni ñu ko xamee ak daan yo teg woon ci ndoddam ñu teggi ko ba tey ji nag mu daal di rek mën a bokkaat jongante yi ñu ne nag lu ni mel sax daal di nay jaxase euh, calendrier bi ñi nga xamante ne nag ay analyste lañ ci wàllu euh, tàggat yaram nee nañ euh, ISO dafa waroon xaar rek ba at mii di ñëw kon mu daal di tàmbaliwaat jongante waaye nag ni mu ko defee nii baaxul dara waaye bu ñu xoolee tamit diggante ISO ak Petite Côte bi kon ay waxtaan yu war naa am ci seen biir su ko defee nag ñagas-ñagas yi daal di mën a dañ Abi fay Mardien ci leeral. US Ouakam jamono ji mënaguñoo gañe kenn ñaari ndërmeelu la amagum gannaaw bañ ko dugalaate ci Ligue 1 bi li ni mel jaaxal lool club boobee waaye ña xarañ ca football ñoom gis ne Ouakam dafa waroon xaar ba at miy ñëw. mu doo a bokkaat. nekk na loo xam ne jafe na si ñoom neex na parce que dellu si nañ ci championnat bi mais jafe na parce que tamit xaw na xaw na indi ay gàkk-gàkk ci organisation ligue professionnel bi la preuve am na ay club yoo xam ne wax nañ leen nekk rek dañuy nar a wàcc. ah am na di trois clubs dafay wàcc Ligue 1 comme Ligue dina léegi dina répercuté wu ba ci ligue nag euh, ligue régionale bi te nekk na situation boo xam ne problème lay indi au niveau ci football local bi daal. Wakam am na une dizaine de matchs yoo xam ne lu mat fukki match par tardé na lu bëri quoi yegg na ba dix journée muy door a ñëw donc li mu rattrapé yooyu yëpp fi mu ne nii presque Wakam rek mooy joué. Euh, yeneen équipe yi jaraaf kenn xamul kañ la gëj a joué Casa Sport kazalika et donc euh, leversement yooyu yëpp mënoon nañ ko éviter. dikkaatam waral na calendrier championnat bi jaxasoo. waaye faaw rek ñu waxtaan ngir ñu mën a fàtte. la xewoon Demba Diop. ñun les sportifs entre nous la Sénégal entre nous la Mbour ak Wakaam c'est toujours le Sénégal mbuurwaay yi nekk foofu am nañu ay mbokk Wakaam baka Wakaam am nañu ay mbokk Mbour donc affaire bi buñ ko waxtaanoon euh, diisoo si. je crois que doon nañ trouver solution. autorité yi ak fédération bi war nañ mën a jouer role de médiation c'est-à-dire dem waxanteeg ñaari équipe yëpp seen supporters yeeg yooyu pour ñu gën a dalal seen xel gën a dalal seen seen seen seen xol yi ah parce que du ñu wax ne dañuy fàtte li li jot a am mais au moins pour ñu ñu ñu ñu tourner la page. directeur publication bu record xelam di tey ci championnat bi bañ a jeex. mais fi mu ne nii situation bi. mën nañu am sax ay crainte est-ce que saison bi mën na yegg à terme interdiction fan la ñuy fan la Wakam di rencontrer stade de Mbour fan la koy rencontrer ban ban stade moo koy accueillir fan la euh, Wakam di rencontrer Mbour Petite Côte ñaari équipe yoo xam ne ñu ngi au cœur de la ville. équipe bu Wakam bi moo jëlagum place bu mujj ci classement bi. am tamit juróom-ñetti jongante yamu war a dabu gannaaw bañ ko dugalaatee ci Ligue 1 bi US Ouakam amagul benn yoon ab ndam. jaajëfal ko baax Habib fay ci wàllu basket tamit euh, jamono ji may wax ak yéen seenub entraîneur euh, ci góor ñi di Adidas mi ngi janoo rek taskatu xabaar yi euh, lamuy wax nag bokk na ci waajal championnat du monde bi nga xamante ni nii fas na fas nañu ko yéene amal kon ci wàllu basket loole dinañ ci dellusiwaat ak Pape Fara ñi ngi mañu fa teewal Pape Fara bu dee sotti na mangook kon Pape Fara sotteegul du ñàkk ñu am ko ci suñu jotaayu mangook euh, kon leer na Pafara yaa ngi ci ligne bi Pafara nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou euh, Kiné. Pafara fu ñu toll ci championnat du monde yooyu ñuy waajal ci wàllu basket euh, lan moo tukkee ci liste ba nga xamante ne ñoom ñoo war a teewal Sénégal foofu. waaw entraîneur bu bees bi ñu jël di Abdourahmane Ndiaye Adidas moom nag siwal na. fukki jour ak ñaar yoo xam ne moom la ñu jël ci mondial 2019 bi waaye nag ab tournoi la ñuy amal tournoi boo xam ne ñu ngi koy amalee fële ca Mozambique di Maputo moom jël na nag xantal may daa xam nga moom bokkuloon ci afro basket bi passé mhm. ndax blessure Cerno Ibrahima ñaa ñëw Adama Louis Adams moom mooy benn locale bi nekk ci équipe bi moom duwaan na nekk Mouhamadou Lamine Samb moom dañ ko recalé woon tamit euh, ci li nga xam ne moo nekk bi El Hadj Malay Ndoy nekkoon capitaine bi Jibril Thiam Mohamed Faye Moïse Diambé Pape Abdou Bat yi ñu naan ko Alces Amady Ndiaye Youssoufa Ndoye ak Ibrahima Toma ñooñu daal lañu ñu woo euh, absence nag góor gi si jaye ak ñoom Maurice Ndour xam nga ne ñoom bokkuñ ci. Mhm. ndax nag euh, waa NBA du yomb noonu ñu bàyyee seen i jour ñu ñëw ci yenn yu nu mel euh, ñoom daal dinañ ñëw fii ci Sénégal le 18 def ci benn fan la 20 war na leen fexe Maputo laata ñuy tàmbali tournoi boobu nga xam ne nag ñoom ak Centrafrique ñoom ñooy 24 ak a métti pour est-ce que wax nañu ci mesure d'accompagnement bi maanaam ñi nga xamante ne noonu la ñu fas yéene gunge sunu gaynde yi moo xam ci wàllu prime ak yooyu est wax nañ ci. waaw loolu moom jotul euh, taxaw bu baax mais ñoom daal lu ñu wax agum préparation lañ jël euh, moo leen gën a intéressé pour le en le 18 ñëwee ñu daje def ci benn jour seen préparation daal di dem waaye xam naa yi nu mel noonu yooyu dinañ ñëw dikk parce que ñoom déjà seen xel li ci nekk rek moo nekk qualification bi dem ci mondial bi loolu tamit nekk lu baax ci ñoom mais am na beneen info boo xam ne tamit Fatou Kiné wadd na mun na leen ko baaxee mhm. ndax coupe du jigéen ñi Sénégal mu ngi bokk ci poule B mook fay daje États-Unis te xam nga ne ñooñu ñoom wax dëgg yàlla ci wàllu basket. Mhm. dañ fee xaw a teg tànk jigéen États-Unis ak Chine noonu lay Sénégal di bokkal pool keneen ki représenté nag Afrique Nigéria moom ci pool B bi mook Autriche ñoo bokk Turquie Argentine ak Nigéria ñoom ñoo ko bokk euh, ci wàllu coupe du monde basket bi am ci diwaanu Espagne. Magog ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, Pape Fara euh, Gningue euh, sant nañu la gërëm la ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéen ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ku bëgg a dee wequ xalifa ababacar sàll fippu na bil sud du bi ñu ko taxawalee démb ca kanamu tribunal ba ngir layo bi jëm ci caisse d'avance bu mairie bu ndakaaru yéenekaay bi nee nañu xalifa sàll dana jàkk président Malick Lamotte su ne doomu jàmbur yi ngeen fi tey defuñu dara bàyyi leen ñu dem dellu ca seenu njaboot su ngeen àtte ma man kese man dinaa dékku lépp wal fajir nañu xalifa sàll assumé ne lépp ba noppi di accusé déclaration bi njëkk bi mu def ci coowal caisse d'avance bu mairie bu ndakaaru kaddu yi mu wàll wi ñu koy dégg gannaaw ba ñu Sall démb la ko def nee na ñi ko jàppandool tey leen ci kaso bi nañu leen bàyyi ñu dem defuñu dara moom it deful dara coow lii lépp politique moo ko lal ay pexe la yu ñu teg ngir sàkkal pexe adversaire ñu ma doon def loo ci wàllu politique te nanguwuma ko moom a tax a toog fii di weddi tuuma ki dëggali tuuma bàyyi leen doomi jàmbur yi ñu ñibbi seen yoon nekku ci les éco mi xëy ci xëtamu njëkk kàddu yi Xalifa Sall yooyee xamal ñu ne Xalifa ma ngay aw ñoñam Xalifa nee na siis bi ñi ngeen téye fii dugal leen ci kaso bi defuñu dara bàyyi leen ñu dem te ngeen suy ma man donc xaaf ne marché buñ ma woon ci wàllu politique ma bañ ko moo waral ñu may rëbb ak a fexe la fitnaal le quotidien nañu bi mu waxee loole Suisse Malick Lamotte si li mu ko tontu moo di lijjanti mbiri politique taxu ñu fee toog leeral lu ne weng moo ñu fi dajale du politique waaye ay fait précis moo ñu fi bàyyi journal le quotidien nañu coowal caisse d'avance bi Khalifa Sall politique la ca gis laas nañu Khalifa Sall ubbi na démb caisse d'avance am soleil national nañu waaye ñi ñu ko jàppandaloon moom Khalifa Sall gën nañu koo dugal ci guut ne ca tribunal ba kàddu yi ñu ba ñu def dara ci rafetul ci ndoddal Khalifa Sall ni ku ci mel ne ndaw Sidi trésorière bu Siya Tabaar nee na liñ daan bind ci facture yi kenn mësu ko livré keneen ku wax lu ni xaw a di Amadou Makhtar Diop percepteur municipal nee li ñu signé ak li am bokkul Yaya Bodiam mi comptable ci mairie bu Ndakaaru ne facture yooyee dañu ko daan def rek ngir régler coowal comptable réew mi quotidien nañu Khalifa Sall sës na rëkk nee nduxumi politique lu ñu ko santoon mu bañ ko moo ko dugal ci coow li lépp coow loolee ñoom Abdoulaye a a nañu duñu dem ñii di prévenu yi mu di ñi ñu jàppandool Khalifa Sall tuumay foo ji leen den toppee yéenekaay bi nee nañu nangu nañu ko démb ca tribunal ba journal Source A ne ñu dañ doon défendre seen bopp ak lu jaaduwul jël ay foo di ko ragge seenub der layob caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru bi woon démb ca tribunal ba ak na mu fa demee direct info xëy na di ñu ko minute minutal audience baag la fa xewoon journal bi mi ñu koy nittali Macky Sall te ko yàbbi moom la l'observateur xëy jëlanteel ci xëta mu njëkk ubbil journal bi ci tournée bu muy def ci biir réew moo ko yóbboon démb ca diwaanu Kolda moom ndaamal Kajoor njiital parti réew mi di i déclaration l'observateur nañu bokk na ci li mu ne CMU di couverture maladie universelle aw rek la am ak bàkk maanaam slogan rek moo fi nekk waaye amalul askanu Sénégal benn njariñ leneen lu mu gisul njariñam ci askan wi moom Idrissa Seck moo di taux de croissance économique bu Sénégal bi ñuy wax ne mi ngi dox mi ngi defi jéego Idrissa bu dee ma waaye askan yi moom gisuñu njariñam traitu gerte bi mu di campagne bi jëm ci njënd njaayum gerte beeg ni muy demee ci réew mi njiital parti réew mi ne ñu niñ ko organiser mu ne su ko xàmmee ak mu wopp foo laal day métti campagne agricole bi ay jafe la làmboo boor bu nekk ki nekk tey ci xët mu njëkk anki dina kay moo fi newoon jamono njiital parti bii di LD mu di Mamadou Ndoye Mamadou Ndoye bi xëy dalal mu ne ñu Benno Bokk Yaakaar doyatul rek jamono ji ngir di jàppale Macky Sall opposition bi ci réew mi mu ne ña nekk bu ñu booloo woon ñoo man fuuf Macky Sall ak alliéem am problème bi kay mooy fexe ba 2019 opposition bi ànd tànn candidat bu wér jiital ko buñ fi bëggee jëlee Macky Sall ki fi jóge bu yàggul di Emmanuel Macron Mamadou Ndoye ne ñu am réewam di France buy jëflanteeg Sénégal ba fu mu mën di yam suñum réew di Sénégal moo cay gaañu Sénégal ak Maroc kan moo ci mujjee Issa ku bëgg xam Issa Diop xoolee ko ci journal record ab défenseur central la buy football ca Toulouse ga ca France baay bi Sénégal yaay ja Maroc la juddoo ba jot faa football sax espoir record nañu moom Issa Diop daa am benn tànk Sénégal am benn tànk Maroc yaram woo féete France Hervé Renard mi entraîneur équipe nationale football bu Maroc jaar ci kaw Aliou Cissé la bëgg ba jël gone gi yóbbu ko Maroc mu football yi jot naa woo Issa Diop téléphone ba waxtaan ak moom ñun nañu dellu ci xët mu njëkk l'Observateur xibaar bi journal bi xëyee mooy mbambu jamono ji ca njaareem benn waay la yaayam bett ci jabari magam mag ji dafa nekk bitim réew bàyyi fi jabaram rakk ji di ko gannaaw bés bu yàlla sàkk mu ànd ak jabari mag ji ñuy siim seen mari ngaañ ba benn bés yaayu waa ji bett leen waa ji jóg daw dugg ca teen ba ndax gàcce les éco nañu waa ji suudu mbay la tudd ba ñu ko bette ak jabari mag ji dafa daw dugg ca teen ba deewul waaye dootu ko defate ndax ñaari loxo yeeg ñaari tànk yi yëpp a damm jaajëfal ko baax moom baax Mamadou Mamen Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaax ñi leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen